waaw gaaw leen gaaw ngeen Production le leader dans son domaine. Ah, am lépp tawfeex sëriñ bi a may. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi. macha mu jël lii andil ko ko tey ci bisu xaritam magam léppam nee na xaadim mooy baayam mooy ndeyam mooy magam muy Modou Fall mi taxaw di taalibe nag si jaaji Malick soo ko gisee da nga naan kii taalibe Sëriñ Tuubaa waaye gëmul ku si jaaji Malick waaye mu bëgg xaadim lool topp ko ne ko dann rek ne ko dann rek. lépp lu mu xam wax xaadim lépp lu mu am wax xaadim xaadim xaadim nee na xaadim nee na Sidi xaadim mooy sama papa mooy sama mag moy sama lépp lu ma sant ma def ko lu ma tere ma bàyyi ko Modou Fall na xaadim sa xaadim nee na ko defal rëy na lool rëy na lool kontaan na ci trop ni ko jàppe gis na ko nee na nee na nee na nee na Modou Fall mi démb la commencé indi ko xaalis bëri jox ko macha allah xaadim nee na kontaan na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm loo mën ren yàlla na ko mën déwén ci barke Seysa Dieng nee na bi mu àndee moom léegi nee na fanweeri at ci ren la nee na tey fu mu toll ginnaaw yàlla nee na xaadim mii la nee na bi muy commencé transit nee na benn dossier la koy jox nee na dem na ba di ko jox cent dossier nee na lu mu am ci àdduna rek moom Modou Fall mii nee na xaadim mii ci loxoom la jaar nee na moo ko njëkk a yóbbu Europe nee na Modou jëndal oto bii nga jaay ko di nga ci am lii nee na ba muy dem di indi 60 oto moo ma jël jël sama njaboot jël sama njaboot wutal leen kayit nee na yóbbu leen vacances kon kii dem na ba nga xamante ni baay bi sama papa papaam moom mii maa ko gën a téye xaadim nee na moo ko gën a téye xaadim maire bi tam nee na maire bi tam dafa mel ni man la jur dafa mel ni moom la jur moom Modou Fall rakkam boo xam ne ñoom ñaar nee na rakkam boo xamante ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay muy fallu daawuñu tàqalikoo nee na daawuñu tàqalikoo ci kaw àdduna ci avion ci avion muy Amérique muy Europe lépp lu mu doon jënd rek ñoom ñaar ñoo koy ànd nee na moom xaadim Guèye Alaaji Baara mi moo leen boole woon rakkam jooj di fallu nee na moom xaadim ànduma ak moom ngir tey ngir tey nee na démb la woon. nee na Grand Yoff. ba Mermoz ba Mermoz ba tey. waaw nee na kii. nee na koy ñaanal yàlla. gudd fan ak wér rek. nee na kii muy delloo njukkal tey jii. di di xalif di alaaj bara. xalif général des Mourides. xalif général des Mourides. tudd bi muy départ Touba. tudd bi muy départ Touba. ñaari yoon nee na ñaari yoon. bu ñëwee fa la ñëwee fa leen di fekk. xaadi mi ngi nii toog nee na xaadi mi ngi nii toog alaaji baara ngi ñëwoon gane si Dakar nee na alaaji baara ngi ñëw gane si Dakar ñëw dal kër sëñ Touba daw dal kër sëñ Touba gi xaadim woo ma xaadim woo ko moom mii nee na xalif bi de bëgg am na soo oto bu mu bëgg foofu nee na am na sa oto bu mu bëgg foofu oto bi mu demee tool nee oto bi mu demee tool ma ne ko man ma ne ko man soxlawuma ci dërëm soxlawuma ci dërëm jël si oto bi jël si oto bi ñu dellu ñu dellu bu ma ñëwee indi oto bi ba mu ñëwee indi oto bi. mu jël ma mu jël ma. dugal ma biir néeg dugal ma ba ci biir néegu biiram. moo kalifa bi mu ngi toog. ak xaadim mi toog. xaadim mi ne ko. xaadim mi ne ko. kii kii. maa moom ñoo bokk ndey ak maa ngi moom bokk ndey ak baay. loo may ñaanal loo may ñaanal. ñaanal ko ko. waaye nee na loolu kum doyul dara doyul la nee na di ñëw fii di buuxante wala muy xëccoo saa bu ñëwee ci gisee nawet bi rek mu daw ndax xam lu ko waral kii mooy moom mooy moom léegi loolu rek la am li muy wax. nee na Serigne Khadim nee na Serigne Khadim mii moom itam jàpp na ko jàpp koo xam ne nee na moog yàlla rek ko xam ak jëmmam ji nee na Serigne Khadim nag nekk jëmm joo xam ne. nee na Serigne Khadim Mbacke nee li muy wax Serigne Khadim mii moom la ñëpp di wax ci moom nee na ku am sutura la digganteem ak doomu aadama yi ci jëf lu baax nee na kon nag Serigne Khadim Mbacke nee na Serigne Khadim mii kon loolu dara jomb ko nee na li ñu koy ñaanal nag mooy fan wu gudd ak ak wér ak kaaraange gu mat sëkk Mbacke Balla nee na nag loolu sëriñ Xaadim nga bàyyi ko ci diggante kër Cheikh Modou Lamine Baara ak kër Cheikh Modou Fadal nee na yaakaar na nag ñaar ñooñu kun séq kenn mënu laa bët bay agsi ci yow sëriñ Xaadim sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Sidi Motaar nee na bu yowoo sa xel dal bu baax a baax a baax nee na ta rafet njort bu baax a baax a baax nee na ki mu yërëm moom nee na ku lay jéem a fexeel te yéenewul a jàmm nee na kooku moom yërëm na ko lool nee na ndax ñoom seeni ñaan nee na dafa am lu ko jiitu nag muy suñu waajur nee na kenn ku ne dégg nañ lu wax ci yow nee na kon nag moo tax ñu ñemee wax lii ñuy wax nee na ñemu ñoo jékki-jékki sax di dogu nee na loolu moom duñ ko def nee na suñu kilifa yi jiitu nag nee na kaaraanga yi ñu def ci yow nag nee na loolu nag ci lañ joggi sukkandiku ci nee na ba lu ñu neex mën nañ ko wax ci yow nee na nga sant yàlla nag bu baax a baax a baax nee na mi ngi sant saxar bi Serigne Modou Fall nee na ñu ngi koy sant bu baax ci ni ñu ko waxee ni léegi nee na ndax la nga séq ak moom nee na yàgg na yàggul. waaye nag nee na mi ngi doog a ñëw ci jataay bi ci diggante moom ak moom nee na sëriñ xaadim mii nag lépp lu waay wax ci moom nee na xam na ko bu baax a baax sëriñ moodu sëriñ xaadim mbàkkeem sëriñ ji nu mu taan nee na ñu ngi lay ñaanal suñu borom nee na lépp loo fi indi ak lépp looy defar sëriñ xaadim ak lépp loo ko yéene nee na yàlla na ko suñu borom ful te aar ko te sàmm ko barke barkeb Cheikh Modou Lamine seriñ Khadim Mbacke moom Serigne Sidi Motaar nee na xolum sedd na guy guy Serigne Khadim nee na nag yow ndax da ngay kenn ci moom nee na amul lenn looy dugg te moom mi yëgu ko te nee na jàmm ak salaam moo ci njëkk moo ci mujj nee na Serigne Khadim Mbacke nee dafa jëleli li la kilifa yi ñaanal nee na taalibe Serigne Touba yi rek nee na liñ lay ñaanal. nee na faaw mu dal la nee na fan wu gudd nag lañ lay ñaanal ak wér barkeb sëriñ Bara Mbacké nee na am nañ ci yaakaar bu baax a baax nee na kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal barkeb Serigne Touba nee na yàlla bu dara dog barke sëñ Bamba bi ñuy bi ñuy daanee kàddu gi sëriñ Xaadim Mbakke di daanee kàddu gi la si ñu bàyyi ñëw bay Modou Mbaye sambu soldaadu sëriñ Touba. kon nag sëñ Xaadim Mbàkke ñu ngi sant bu baax sëñ Modou saxel na dal kii toog Cheikh Modou Lamine la kon Baye Modou fi ñu lay joxee kàddu gi mooy sëriñ si Xaadim Mbàkke moom sëriñ Sidi Moxtaar dafay ñëw waaye bi ñu xëyee nag ba léegi waa kër sëriñ Amadul Moxtaar jàng nañ ñaar kaamil ak ñett waa kër sëriñ Saaliw jàng nañ juróom fukki kaamil li tàmbalee ci njabootu Serigne Touba gépp daal bañ xëyee ba léegi ñëpp ñëw nañ fi ak seex ak sëti Serigne Touba yi ak waa kër Serigne Baara yi ànd nañ moom dem siyaare Serigne Moussa Serigne Moussa na ko ñoo bokk baay yow bul wax dara léegi lañ jógee Serigne euh, Serigne Galaskal tam lolo la ko wax kii nag xaritam la Modou Fall indi na fi teraanga joo xam ne oto la ko duy ba mu fees camion dara manqué wut nee na nag xaadima ko jàngal liggéey kon bisimilah. waaw mu mel ni kon Serigne bi maa ngi lay nuyu di bu baax ci weeru tedd rawatina bis bu tedd bi ñu bokk daje ci barab bi dina wax ni nag tey dañuy ñaan suñu borom ci darajey sa wajur wu tedd wa nga gudd fan te wér man mii maa jëkk Masaalikul Jinaan ndax fii ci camp Dial bi ma nekkee officier de transmission barab boobu man maa ko yeesaloon ba tey jii boo fa demee man nga faa julli ñaar rakk Masaalikul Jinaan man la suñu borom dimbali man teg ko bët jàmbaar ji jëwriñ ma eh, mbakk yu fay maa ko tingoo mu ko barab bi sëñ Alaaji dikkee moo ma ni foo toll ma ne ko maa ngi Dakar mu ne ma bu nit yëg ni maa ngi ñëw Dakar fan laa lay fekk ma ne ko foo ko bëgg rek dama bëgg a dem ci ñaari pàkk yi ma bëgg a jëkkee kër mbàkk yu fay ma ne ko may mu ma jëw la tuuti mu ma nangu naa moo woo mbàkk yu ni ko Alaaji Baara sa kër lay jaari mu ma lan daal di wadd biñ dikkee mu nuyu ko ñaari pàkk yi laa bëgg a gis ñëw mu ne ko pàkk bii du fii ñu dikk ci pàkk bi nga xamante ne am ndox la moom ku ci ne mi mëdd na la mu taxaw tuuti ni ma fii la tibbal suuf ma tibb suuf mu ne ma fii la ni ma gees ni ma tey la lan ma ne ko altine mu bu àllarbaa ngeen tàmbali liggéey bi te jullee fi tabaski boobu suñu digganteeg tabaski fukki fan ak juróom-ñaar képp moo fi dox man mii maa dem pompier ab fa juróom-ñetti moto pompe ñuy manque ndox mi ah, mbakk yu jënd 300 camions suuf ñu sotti ko jullee fa bu demee ba barab bu mel noonu alaaji wax ma ni ma du ko bind ci sama tur dama ko bind ci turu communauté Mouride ndax sëñ Tuubaa ko te barab bi mooy fàttaliku ñaari guddi ndakaaroom ya daal di jël mbuus mu bula mu cent franc def ci cent million ni ma lii nag cent million la joxal ma ko mbakki yu mii ndax moo ma doy ci biir liggéey bi ñu nekk ci biir liggéey bi kon alaaji ñun mënuñu koo fay taxawaayam ci diine l'islam it am naa lu ma ci seere ndax moo ma ni sama signature ak sama coup de fil lu may nit du ma ko xañ bëgg lool sëriñ Touba taxawu ko lool kon bu ñu demee ba yàlla dogal mu ni ma kii moom maa ko jur sama dooma lii al te man maa ngi ci koor man bu ma añetee dañoo wari mais moom mii nag moo ma ni alaaji moo ma ni sama dooma waaye boo liggéey nag su ma ci jëfee sama coobare bu ma kenn mere ndax buggul ku dul man loolu Alaaji Baara moo ma ko wax kon nag su yàlla dogalee liggéey ba toll foofu sa sa wayjur tedd wa def na ci lu kenn xamut nu mu toll pour rek sëñ Tuba am ndamul kon buñ fi bokkee dajee am naa sant ndax barab booy dem ci barab di fa wuti dara fekkoo fa ku koy wut ku wut fekku fa daje ba ku wut ku wut dajewul ak yow booba booba booba barab booba dara ñëw kon fii nga toog Mbàkke suñu xel da ci dal waaye nag booy dénkaane ci janj bi da koy yëgal max dana ci baax lool ndax moom mii kat euh, euh, keroog le 7 juin bi may defal Serigne Falilou Mbacké soixantième anniversaire u jumaay Touba la ma jëkk a wax mooy man kat maa ngi ci voyage dama koy accourté ñëw fekke ko yónne ci jëf jooj kon ndey joor lu mu la defal su ko ndeyjoor mun a gul fay faal bu coow làmmiñ jóg loolu mooy wa ama bi ni mati rabi fa addis kon nag tey man defar def naa man tim juróomi téeméeri jaalibatu maraxib ak fanweer donc mat na ci suba loolu it boole ko ci liggéey bi ñu yóbbante ko alaaji ndax keroog bi may koy defal le 7 join dama ni kaamil yu ngeen jàng daal bu leen ci sonn dem leen rek ma jël ko jox alaaji ku muy séddu séddu ko kon nag loolu it nag maraxib yi nag mi ngi noonu ñaan nañ nag nga gudd fan te wér ndax kat sama baay moo ni sëñ Tuubaa nee na ko Abdul Karim mu ne ko Mbàkke mu ko ku bëgg a gudd fan nooy def mu tuñ tuñi mu ne ko teebalaat dimbali bëccëg bi li nga xam da nga koy bokk ak waa àddina ñu ñaan yàlla boo dem ñun ñëpp buñ sañoon doo dem fenn bu timisee ngay ñaanoon waa alaxira ñu ñaan yàlla bu ñu àddina buñ ñaan bu ñuy ñaan yàlla boo dem alaxira ñaan yàlla bu ñu léegi nga yàgg fi Ahmadul Xadim na nga fi yàgg bi ci desit bi ci desit mu ne ko Abdul Karim weer boo koy séddale ñett nooy def sama bàyyi ni sëñ Tuubaa xanaa ma dem ku ne këram ma jox la fukk da nga fay yàgg da ngay fekk gën a tabe nga jox ko du fàtte ñaar ñi yow boo amee ñun doonu fàtte kon nag noo ngi lay sant bu wér te di la dénkaat nag ni la lii alaaji rekk la ko jaral man sama waaje miin naa ko moo ni woon nag euh, euh, ana nga soldaar maa mu ni ma euh, dina dina neex mais du yàgg ah waaw du yàgg ah, du yàgg maa mu ma kaay gunge mi sëñ Fallu ma dem ba toll ak bi la mu ni ana baara ñaan mu naan ko ba nga dañ di tël mu ne ah, fallu fàllu nëbbuwuma bi muy dund nëbbuwuma bi mu fi jógee ah ah sa wàcc ko ne ma kon mi ngi noonu kon rafet googu nga rafet ak taxaw gi nga taxaw ginnaawam boole gi nga boole njaboot gi waaye géey yàgg fi waaye te yor lu bari ndax lii nga def dafa rafet te it maa ngi lay wax ni la jëf biñ ko doon noo tudd jëf mu ni waaw noo sant mu ni wax kii ni kii jëf dañ ko ni bul wax waaye kii ñu jëfal dañ ko ne bul noppi te ñii fi daje ñëpp sa leen fi dajale kon ñu ngi lay sant di la gërëm teraanga ji nga fi andi nag sëñ Modou Fall ñëpp nga ko defal ndax koo teral tëral ko koo tëral loo ko tere mu bàyyi ko waaye koo toroxal toxal ko mu daw la ni muy dawee toroxti te jëmm ji lu ko nit def rek nun nga ko def lu ko nit defali nun nga ko defal kon ñu ngi lay sant bu baax te di la ñaanal nag ci darajee shahru rajab yalla leen may leen fa du gudd boole leen yàggal leen fi sëñ bi nag bu gouverneur demee it du yóbbaale pale bi est-ce que je comprendre maa ni su gouverneur demee kon ndokk waaw ah, sëñ bi ah, ah mbaa yaram mbay na nga gën a na nga góorgóorlu dégg gëj a gis la baa ngi tax mu ni waa li tax waaw ñu ñu may ma rek mu wàccee li tax koo bëgg da nga koy bëggaale la mu am boo ko déggee kat naa la indi problème kon nag léegi Mbàkke bu ne caam sama xarita ñoom ñii ñu indi fi teraanga ci barab bii nga xamante ni moom la ne te mooy itteem kon mbake duñ def nag lu dul seedeel la ko di la wax nag ni la am na fu nu jaar yow xam nga man xam naa maa ngi wàcce kàddu nag di la wax ni képp koo xamante ni tey ñëw nga Aliya rawatina ku ñëw ci kër gi bu ma nee waaw danga naan waaw na aajoom faju ñëpp ku ci ne ànd ak problème yi am ci réew mi te jàmm lu ko way jënde sëñ Fallou ne looy am am jàmm da nga jaay la nga am jënd ko jàmm te jàmm 43 la soo ko wirdee ña ñetti yoon muy latif di 129 jàmm jooju nag sëñ Touba bi ko suñ borom ne da damaa bëgg nga wooma ci turu jàmm da ko ni déedéet naa la tuddeb dëkk tudde la doom door laa woo dëkk bi nu mu tudd mu ni daaru salaam doom yi nu mu tudd mu ni abdou salaam door wax yàlla yaa salaam kon jàmm am na solo lool kon nag mbàkkee ne jàmm jooju wàcc ñu ànd ak tawfiq ànd ak xéewal damaa mënta jóg su ma sañoon rajab du ma génn sama kër ba ñu wari waaye kii moom damaa xamul nu koy def ndax nag ko taqool la mu taq la lay taqal maa ngi koy sant te di ko gërëm te di la ko seereel tey ñaan nag tey ku fi teew bu kenn fas dara ndax mën danoo fas mu fecceeku dañuy bàyyi mu nga fasal nu su ko defee aajo yëpp faju sa baay maam kat ñëw na Cees gane sam pap géwél yi woy ko mu may leen fas wa gën ni ma Abdou Karim ba gaawul ñëpp dañuy dem géwél yëpp sawar lañ jëm waaw naa sama fas waaw joxe naa amaa ko léegi boo la joxe aw fas maa doon ci teexaat xaalis kon dayo boobu nag jugu fi kon nag ma bëgg nag nga ñaan tey aajo yëpp faju mhm. ñi fi dikk ñëpp kat ku nekk sa xel sa sa xol sedd te mën nga ko xaadim nag daam loo xamante ne bëgg naa ñëpp bàyyi ko xel man de alaaji baara moo ma ni da ngay dem màkk ma ni ko ñaata yoon alaaji boo ma yóbbu màkk bundul xeex lu mu la waxati bul ko gëm yoon man armée bi yóbbu na ma daanaka quinze fois yóbbu naa sama bopp sonn naa ci màkk mu ne ma di nga dem par force may sëñ lu may sëñ tuuba est-ce que tu as compris mu teg mu ne ma ne ko damaa bari bor mu ma wala 4 millions nga fay bor yo ah ne di dem ma ne ko waaw ah. mu ma maa ngi lay xaar Dakar biñ demee ba Makka ñu am fa un mois ak ji métti loolu man koy yaa ma tooñ dëkk bii nga ma indi ma dis gor di julli képp ci dëkk bi sumi sama tubay wodd di daw dóoru xeer kaaba gi daw diggante xeer ko xeer saf ak maraw fab xeer sànni xeer yenn ciy xeer fanaan ciy xeer alaaji tooñ nga ma mu ni ma kon nag booy dikkee ndakaaru dinañu xeex ndax def naa ko cinquante sept fois kon teraanga jooju Mbàkke mooy li nu fi andi di sant bu baax di gërëm bu baax ci barke Cheikh góor gi li ma li ma li ma li ma ci dolli rek ya yaara yaara yaara Mbàkke yaara Mbàkke li ma ci doon rek moom mii mu xam loolu nag taxawu peex ci zaahir ak ci baatin te daa nga ji ko yàlla jox mu bokk ko waa peex yëpp lu mu am lu ne indi na ko peex ndax ndayam ni mu peex moo tax tey ñu àndanteeg moom mu ñëw ziar si xaritam sëñ Xaadim Gueye mii waaye Mbàkke ñu fekk la fi nag suñu xel dal ci yow ndaxte yow kët yoonu murit Mbàkke kenn du ko yàq ku ne jaar kenn du ko yàq jaar la ko ci yow ci sa yaru ci sa teey ci sa xam ki nga doon nga di ko doxal saa su ne te kenn fekklu ci lu ñuy tere te loolu nag taalibe yi lu ñu ràññee la ci lu ñu ràññee la ci yow sëñ Xaadim Géy nag day xaritu caam di léppam kenn ku ne xam na ni caam mii dafa nekk ca Ndakaar di fa yëngatu ci wàllu oto waaye Xaadim Géy mii day magam di xaritam di léppam kenn ku ne xam digganteem ak Serigne Touba bisu Serigne Touba yi bu ci jot nii mu def day def délégation dem ci njabootu Serigne Touba yëpp barki dem bu Poroxaan fukki million ak juróom la jël jox ko Cheikh Mamadou Mountakha te noonu la koy defee noonu la koy defee ci njabootu Serigne Touba gi yëpp noonu la koy defee Serigne mamoor Mbakke bu ñëwee Europe wala mu ñëw Amérique càmm mii mooy futteeku moo Amérique la nekk mooy futteeku jël ay otoom jël alalam. ànd ak sëñ Mamour Mbakke ni ko la seex Mamadou mu talaado liggéey dama koy ànd yow ñu liggéey ko ban na ma ko bëggee woon ñu di ko ñu di ko amee saa ne kon nag Mbakke loolu bu ko dee liggéey ci taalibe yi nekk xaritu sëñ Xaadim Guèye mii sëñ Xaadim Guèye mii di nit ku baax chaque jour dama koy wax ni ko alaaji baara demul nga bàyyi njabootu ko alaaji baara gi bi fi alaaji nekkee ni nga taxawee woon alaaji bi fi alaaji jógee noonu nga taxawee njabootu ko alaaji gi njabootu ko ca parkinam ba fa bis boo xëyee boo ñëwee da nga fa fekk leeru seex leeru alaaji baara loolu nag wane na ni kóllëre ginnaaw lay féete mu xam kóllëre googu di ko dox saa su ne kon tey bu bis bi amee mu tabax fi lii mu fi tabax ngir alaaji baara ak nam ko téye woon woo xaytam yëpp cam teraanga jóge peex peex di kër ndayam di kër baayam di kër léppam mu ñëw fii nekk taalibe bi sëñ Tuubaa nekk taalibe bi sëñ am sam sëñ sooy bu kon nag loolu mbàkke daanu la ko leer ba nga dékkul di wan ni taalibe bu mën a jëf ci kër sëñ Tuubaa ngi nii taalibe boo xamante ni fu sëñ Tuubaa wootee fu ne mu jug màggalu ko Alaaji Baara gi mus koo wute cérémonie officielle bi ci kanam tuuti boo ñëwee da ko fekk mu toog te lu ko fi war mu def ko fi bi mu ñëwee rek dem na ci sëñ Moustapha dem na ci sëñ Gass Kaltoum dem na ci njabootu Alaaji Baara gépp ni nag damay dem ci sama baay sama xarit sama mag sama lépp di sëñ Xaadim Gueye te xam ni kenn mënul tudd waa kër Alaaji Baara gën a ci Xaadim Gueye doomi xol daa am ak doomi deret waaye moom doomi xoli Alaaji Baara la tudd soxna Aminata Lô yaayam tudd. soxna Aminata Lô tafsir Bakar bi la bàyyam tudd ba ci dex li soxna Aminata Lô sa maam la di dox xaati mu taawloo ñaanal sama waaj xaat bu jum jëlee raay bi jaare bi ci Touba jëlee raay bi jaare bi ci Touba fekk sëriñ Baara bi Sulaay Ndoy ji Baara Aminata sa wajur bu baaxoo defal na lu ne sama baay wuli ma tàng pex di daagu sëriñ Sidi Muxtaar la sa baay tudd nee na ko ca Samba xëya da ngaa ñëw fekk fi sa bu baax bi moom sëñ Baara waaye nag Cheikh Samba xëya xam naa ni xam naa ko xam goo xamante si ni ñoo bokk Cheikh Modou Lamine Baara Mbacke borom kàddu geeg Mbacke Kajoor waaye ki nga yaakaar kooku mën naa ni mooy jëmm ji toog muy sëñ xaadim mii kuy waajuram sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke waaye nag sëñ xaadim Guèye mii mi ngi lay sant bu baax waaye daa am mbégte mu rëy nag ndax wax jëf day tingoom wax ndax dañuy wax léegi daane la guñu nga dugg si te sànq ci lañ leen doon wax ci diggante Cheikh Ahmadou Lamine Bara mbakke ak ki nga xam ci ni moom mooy seen waajuroo sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke seen jëf ju rafet ji waaye alaaji xaadim Guèye mën naa ni suba ba léegi nii la demee ndax sànq bi ñu demee fii di siyaare kilifa gu tedd gi kii nga xam te mooy kan moo moo ñëw seede si jëf ji muy Serigne Abdou Karim mum sëñ Abdou Aziz mum Cheikh Ahmad lemin Baara Mbacke borom kàdd geeg Mbacke Kajoor kon tey jii suñ demee ba sëñ bi di ñaan nga dugg ci yow seex Samba Xaye kon ñaan gi nangu na waaye nag. wax ak jëf bi ñuy xuloo wax ak jëf bi ñuy xuloo wax ak jëf bi ñuy xuloo ku ñëw jëf ngay faral waaye bu jëf jotee Serigne Khadim Gueye mii nit ñi fekk si jëf na nit ki nag bu jëfee ba raw la doo mën a ba dab ko waaye yow jëf nga ba raw ci waa kër sëñ Baara yii say teraanga ak ni nga juddoo rek noonu nga jëfee li nga sol sa jikko jee ko dàq mbooloo mi fi ñëw yëpp sa jikko ji moo leen fi indi baax nag alalu yàlla la te moo dal moo tax bruit bi embouteillage foog mu am waaye bi nu ñëwee dañ fee fekk koo xam ni jant bi musta tiim ku mel ne maamam Khadim borom jumaa ji le plus grand homme monument d'Afrique Serigne Sidi Mokhtar la sa bàyyi tudd mini ni jooy te noppeegunu sëriñ baara aminata la baayam tudd mbokk ndeyam sëriñ Modou Moussa mi jëlee raay bi njaareem indi Touba jëlee baayam njaareem indi Touba soxna Aminata loolu la seen yaay tudd tafsir Matar Bintam mi jim mbeex mi la bayam tudd juróom benn doomi isa jéy sa maam ku ci ma sa wote gàmm du dem lu laaj ko seexul xadim mun du jur jigéen lu mu jur wàlli wu lay doon yàlla ko jukkumbaak faaloo ko jukkumbaak ànd sek ko jukkumba mi na taag mu soami a taag yaaba xarit maam ak aali xarit maam mu ko jukkumba sa maam moo njëkk bind mu xaddamatul kokki yu sa maam ñi nekk sant loo mi ngi tudd saamaan ibnu suuf yu waaye sëriñ xaadim gay sëriñ baara nga yakaar sëriñ baara sëriñ Fallu la bàyyam tuddu jëx réew la jëx réew buñ koy wax ab néeg la moo tax ñu naan jëx réew askan la càmmiñal Mariama Kunta jigéen bu bokkal ndey ak bàyyi la soxna Awa Buso la yaayam tudd soxna mati ñang maam aafe ñang soxna mu kël soom fat sànqe ab sa saar awa dikki camara moo jur daan nume ñang mu jur soxna sowaala mu jur sëriñ bu soobe càmmiñi soxna jaara bu soog mamati bu so dama ni baax yàgg na fi waaye sëñ Touba dafa ñëw gën mbir mi xaadim borom jumaa ji la le plus grand au monument de l'Afrique baax dafay yàgg nag lool waaye sëñ Touba daa ñëw gën ñëpp jant bi mu sëtiim ku mel ni moom looloo am jërëjëf waaw kon bu ko defee rek ñu teewlu rek tuuti rek ci ay kàddu yu jóge ci euh, léegi léegi mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di nuyu bu baax ji dalal bu baax sëriñ xaadim Mbacke mii toog moom Cheikh Sidil Muxtaar borom Touba Bodé moom mii fa baayam tegoon rek foofu rek la toog ca Touba Bodé ne fa di fa liggéeyal sëñ Touba di fa liggéeyal Cheikh Mat Lamine Baara Mbàkke nag sunu xel dal na bu baax ci sa jataay bi ndax kii nag amul lu dul Cheikh Mat Lamine Baara ca Cheikh Mat Lamine Baara moom Cheikh Mamadou Fadal ni mu meloon ci Cheikh Mamadou Lamine Baara moom Serigne Touba ku ne xam na ko nga ñëw sa toogaay bu rafet bii ñu ngi ciy bëgg di ci sant kii ñëw nag day sab donga de sab taalibe mu Cheikh Samba Xaye mii moom amul lu dul Baara amul lu dul sa waajur wa nu xam sa diggante ak moom bu wér a wér xaadim mii nag ku ne mën na ko fa fekk si ndax bi mu doone li mu doon ba ba pare daa ànd ak mat di doxee cim xelam nekk nit ku yiw jaxasoo njabootu sëñ Tuubaa waaye bis bii nii këram gi mel mënu ni bañ a ñàkk mel ndax barki démb ba léegi këram gi nii la mel ca lépp lu ko war ci dëkk bi ci Kazu Rajab gi def na ko màggalu alaaji baara bu télévision yi ñëwee mu joxe la ci war a dem bu nag yee ñëwee mu dexee la ci war a dem barki démb dëkk bépp la dugg mboolem kuy doomu sëñ fallu rek dugal na sa kër aw nag mboolem kuy njabootu alaaji baara dugal na sa kër aw nag doog ñëw ci këram gii de dog ko ñaanal alaaji lépp lu mu def ci dëkk bi ci Kazu Rajab gi def na ko mboolem loo xamante ne war na ko doomi sëñ fall yi ak njabootu alaaji baara ba ci sëñ Moustapha mi li ko war lépp def na ko kon ñu ngi lay ñaa ñu ngi lay wax ni nga ñaanal ko ndax moom sëñ baara rek la gëm xam naa ne nee naa ko barki mu ne ko lépp lu la sëñ baara defal de waaye sëñ baara jaral na la ndax ku ñëw ci aliye taax yi nga fi def sagal nga sëñ baara waaye kii ñëw day xaritam di soppeem di léppam di Cheikh Samba Xaye mii moom sëñ baara daa bëgg alaaji xaadim mi lool sopp ko lool démb la ma woon ni ma lu mën a xew dinaa ñëw màggal alaaji baara waaye bala maa dem fenn dinaa ñëw ci xaadim gi alaaji baara ndax parkinem bee ca ndakaaru ñëpp ko fay fekk Cheikh Samba mi léeg-léeg dina dawal otom ba ca biir ñëw fa saafante ko moom ñëw dem ngir diggéem ak lañ fay sëñ baara jën fay tudd ndax moom fuy tudd sëñ baara rek moom lépp mu ngi fa kon sëñ Samba ñu ngi lay dalal jàmm di ñaan bis bi yàlla nga ko yàgg a teewee di ñaanal sëñ xaadim mii ndax nit la woon koo xam te ni mu demoon ak bàyyam adduna bépp xam nañ ko ni mu demoon ne kii xam nañ ko magam ju baax ñaan mu yàgg fi loolu ci la nee na doguma nee na ñu ngi ñaan ñu dégloo tuuti nee na ndax kim fi fekk nee sëñ xaadim mii bi ko fekkee ak sëñ xaadim nee na xolam dafa sedd nee na dafa am loo xëy ni xañ na am na ñu ko xam am na ñu ko xamul nee na diggante bii kër sëriñ Baara ak kër sëñ Sidi Muxtaar nee na génn kër rek la nee na li tax mu ciy def seede nee na moom gone la nee na moom waajuram Cheikh Sidi Muxtaar nee na dimbali na ko bi mu fi nekk nee na ba ñëw ci alaaji Baara ma ànd ak alaaji Mbàkke nee na tabaski gi mu jëg am gi alaaji Baara mu jë fekke nee na mu ñëw nee Cheikh Sidi Muxtaar ne fii ci tanim nee na mu woo ko nee na mu woolu sëñ Mbàkke Kebe nee na moog Cheikh Ndiaye ak gaja Gadiaga nee na mu lee ñaari oto yi Mbàkke Tuba nee na fii ci jumaa ji nee na ñëw tanim nee na yëpp xar yi nee na muy fukki xar ak beneen oto bi nee na ñu jëm ci kër Alaaji Baara nee na suba teel nee na ñu ñëw ci kër gi ci njigis gi nee na fekk gun Alaaji Baara xëy si mu ne ci kër gi ci marché nee na ñu ñëw fekku fa nee ñu ne ko sëñ Cheikh Mati lay fi yónnee nee na mu toog ci piliyaan salu njamput nee na mu ñoo taxaw ci bunt bi alaaji mbakke nuyu ko nee na ni ko sëñ Cheikh Mati lay moo la jox fukki xar yi nee daa bëgg nee na nga teg sa bët nee na boo tegee sa bët aajee jaam ñëpp faju nee na sëñ alaaji ni nee xar mu ne nan ma jox gumam nee na korog moom mi moo doon jër për gum di ko jox alaaji Baara ba ca fukkeel ga mu ne xar yu mel ni da ñëwagu fi nan ma ko beral ci magasin bi nee na daan guy mbindee sab cër nee na sama turandoo ba mu ko fi jël si moom sëñ Baara da ko ci fas romb sëñ Fallou ci biti ni kon li ma fi am rek laa fi jëlee de nee na kon foofu sab cëra nee na teel moom nee na lim ci bind ko rek nee na alaaji Baara dañuy sëñ Fallou sëñ Baara sëñ Fallou sëñ Baara daal ni ma taflil nee na loolu moom Cheikh Samba fekk na ko nee na loolu sëñ Sidi Mokhtar ko dimbali nee na boo ñëwee fi fekk fi sëñ Xaadim nee na loolu seede rek la. nee na sëriñ bi nu ngi lay sant bu baax nee na xaadim gay laaji baara moom nee na fan koy fekk ca ndakaaru birom ba mu nekk ku fay ñëw waaye boolem ya ca berne ba xéwal ya ku ne fay dem nee na mu di ko joxe nee na moom nag loo koy wax nee tudd sëñ baara rek nee na njabootug sëñ baara gi daal góor ak jigéen fek nañ ko fa nee na ku ko fekk nee na da ngay xam ni këram nga ñëw nee na sëñ Abdou Guèye Ndini mii bi mu mujjee dem foofa nee na fala ba mu ko fekkee nee na ko moom sab sëriña nee na ndax moom kat guddi guddi guy mindi rek lay tëri sëñ baar rek koy rif nee na ku mu ko fekkee rek ab sëriñam ngay ab sëriñam nee na sëñ xaadim mii nee na daa toog toogaay Cheikh Sidi Mokhtar ci moom nee na moom fu ko gisee nee na li mu koy wax góorgóorlul ca tege ci yoon ca xam ni yëf day jaay ku yor njëg ci nga bokk kon sëñ xaadim ñu ngi lay san biñ la fekkee ci sëñ xaadim ngay mi kon mbooloo mi fi teew yëpp moom mi daal nee na tey jii aji junam nang nu ñaanal buñ génne lépp baax nee na Baye Bassirou mi ngi koy sar Baye waaw waaw ñu ma man la ñuy yónni di ma jox nag yi di ma jox xar yi di ma jox lépp te nee na baaxu kii di sëñ xaadim moo tax ne boo fi toogee nag di sëñ Touba te mu teral ma teraanga ju tol noonu wóolu ma musuma ni li nga jënd ñaata la musuma ni barab sangam nangam damay indi rek ni ko mi ngi nii taxawaay boobu mu taxaw nag ne la bëggoon nag sant ko ci sa kanam te ñaanal ko nag nga ñaanal ko ndax lii ñu ay millions et million la ay xarak ki naga ki béy lépp moom mii moo koy indi moo koy toppatoo tey nag bu ko toppatoo it dana ko defar na mu ko war a defaree kon bu dikkee fii ngay sëñ Tuubaa moo tax muy ne la ko seereel nga ñaanal ko demal ne mu ñaanal la sa aajo faju waaw jërëjëf taaw yàlla dina la dimbali ku ñu xam nay wax lu ñu xam te di ko def يا ربنا إن الورى تدره لأولياء كما ليسمعوا يا ربنا إن الورى تدره لهولياء كما ليسمعوا ilayka ya rabbal wara ya rabbana ya rabbana ya rabbana fa kullana ya rabbana inal wara tadaro لأولياء كمال يسمعوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا waji lana lutfan wa amdan ya ahad ya man taala lam yakun kufan ahad waji lana wa amdan ya ahad ya man taala lam yakun kufan ahad nan tag ahmadul lemin moom la nu may surun ma soon xar baa la fee sabani guñ ci xarnu bi siñ baara baatin ba jaaxal na kajoor moo tax ñu far ko lem boo ko gisee ma ngay ba ni kuy lu ci xarnu bi fa jaajo moo ci gën a gaaw lu wax boroomam mu ne waaw day falli falli ci lu gaaw siñ baara mat naa ci xarnu bi siñ moo daan way nag te jànguloon araf te man xam du ci moo man arab te man wolof jommal na mboolem xarnu bi rijaali xam nanu dara bu nee jalañ ñuy safi jaam ndaram ndaram di safi mbaam raamal ko war na xarnu bi yal nan ko may nang mbuutu lamin fegal ko ayu bépp noon ku dégg ñaan gi neel amin ndax yàlla naatal xarnu bi Cheikh Modou Bara Mbacké nag ma jolli jëm caaras mu taw guy mindu don taaw sëriñ baara yeley malaayika seeni lim juróom ñett lan ñoo bokk ñoom taw aras wóor na baara ahmadun alamiinu borom bun yaana mayam ya yaana kooku mooy sibtu jaara sëriñ baara mbakke sëriñ baara mbakke taalif na tiir yu mag tabina saadatul abraaru ak munawirul bunyaan jaalim na téere yu mag ca biina ak munawirul bunyaan moo may mama kase loo xam ni kenn musu koo may ci gaa yi dine mbaa gaa yi yàlla mama koddu moom du lak feeg yomal xiyaam sawra ak gara sayem ahmadun alaminu yow de amuloo morom tooñoo mi ndeef te ci ragal nga sab borom Seex Baara Mbakke nag yàlla ko ñàkk jaar ko ku ma sotoñ Seex Baara léegi yàlla faat ko la fi nekkoon ba tey bilaa ñu jugu fi ku moytuwul ñoñam léegi nga juge fi giñ naa war naa ku bëgg Seex Baara na moytoo def lu dul neex Seex Baara Cheikh Sidil Muxtaar Cheikh Sidil Muxtaar Mbakke Cheikh Sidil Muxtaar bàyyi Serigne Khadim Mbakke Cheikh Sidil Muxtaar Mbakke ku ko bégal yàlla bégal abada ku ko meral yàlla meral abada baray Mamadou Lamine Mamadou Lamine Bara Serigne Bara yow yaay sunu mbar baari Lamine Ahmadou Lamine Ahmadou Lamine Bara Sëñ Bara yow yaay sunu mbër baari Lamine Bara Ahmadou Lamine Ahmadou Lamine Bara eh, yow yaay sunu mbër baari bilaay Bara Ahmadou Lamine Ahmadou Lamine Bara Seex Sambay gayndek Bara baari Lamine Bara Ahmadou Lamine Seex Sambay gayndek baara baari labinoo baaray mo dulem mil Sambay gayndek baara baari Sëriñ Baara yow lanu yaakaar fii yow lanu yow lanu yaakaar abadan baari bilaay baara amina tolo Mustafa ko ci gis muy Bamba baari Sëriñ Bara yow la nu yaakaar fii doomu xolu alaaji Bara Bara xaadim ngay doomu xolu alaaji Bara Sëriñ xaadim doomu xolu alaaji Bara Bara bilaayu doomu xolu alaaji Bara Bara saxaay wa léegi léegi léegi léegi ñuy déglu kàddu Serigne Khadim Gueye Serigne Serigne Abdou Gueye moom mi ji jarbaatu sëriñ bi mooy tontul Khadim Gueye sëriñ bi bu ko defee ñun ñëpp ñu déglu sëñ ab Gueye nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp ci kenn ku ne sa tur ak sa sant e jenn jenn jenn jenn jenn kaddu ngay mooy bëgg a jub nii na ñëpp teewlu ndax yi tey bëri na ci sëriñ bi yàgg na fi. sëñ xaadim nee na mi ngi nuyu ñëpp. nee sëñ xaadim ngay nee na mi ngi nuyu ñëpp. sëñ xaadim moom ku ko xam. nee sëñ xaadim moom ku ko xam. nee waxam bëriwul. xam ne ay waxam nag bëriwul. jëfam moo ëpp. jëfam moo ëpp. nee na waaye daa wax rek mu santal ko. sëriñ xaadim mii toog nee sëñ xaadim mii moom sëñ Sidi Muxtaar mii toog nee na di xaritam nee na ta nga xam ni nee na sëriñ Sidi Muxtaar nee na moo leen boole woon nee na loolu du asaar nee sëñ xaadim di ko doxe nee na sëñ xaadim ngay jàpp loolu nee moom Abdou Guèye mii nekk ak sëñ xaadim mi nee na xam ci lu bëree bëri nee na moom mu nekk a xaritam nekk ay complice am nee na ci suba bi mu ko fekkee ci sëñ Moustapha. nee na mu ànd ak sëñ Moustapha. ak Cheikh Bass ak Cheikh Bass nee na bi mu agsee nee na lim ko njëkk a laaj nag ci sëñ Xaadim laa jëm Cheikh Fallou Mbacké moom soxna Oumy Touba mooy nuyoo noonu ànd ak ay rakkam ñoom ñëpp Serigne Fallou Mbacké moom soxna Oumy moom sëñ Fallou moom sëñ Bass moom sëñ Mandoumbe Xabaan mooy nuyoo ànd ak bokkam yëpp bisimilah nee na ngeen toog ni sëñ bi nee na ngeen toog waaw ñu yëgale kat nee ngeen toog ñu dalal Cheikh Fallou. bi ma fekkee sëñ nee na bi mu fekkee sëñ Xaadim. ci Cheikh nee na ci sëñ Bass. ak sëñ Moustapha. nee na ak sëñ Moustapha. li ma mooy. nee na lim ko wax mooy. ci sëñ Xaadim nee na ci sëñ Xaadim laa jëm. kon loolu. nee na kon loolu. muy rek. nee na muy firnde rek. ànd bi sëñ bi boole. ànd bi leen sëñ bi boole. jàpp la nee na luñ jàpp la. nee na sëñ Xaadim. sëñ Xaadim Gueye nee na. mi ngi lay sant. di la gërëm nee na lépp lu mu taxaw rek nee na balaa gis kenn nee na yow lay njëkk a gis nee na ca loolu nee na tey ji wanewaat na ko nee na nee na mi ngi lay gën a doon dénk boppam nee na di wax ni jàpp na kóllëre gi nee na ca fàttewu ci dara ca xam ni da nga koo jàpp rek ngir jëmmi sëñ Touba rek ak sëñ Sidi Mokhtar ma leen boole woon nee na loolu nga di ko doxal nee na bàyyiwoo ca dara nee na mi ngi lay sant di la gërëm wax la mënul nee na daal moom wax rek la mëniwul waaye yéen a ji daal nee na mi ngi ñaan suñu borom yàlla mottali ko ba nekk kenn ku ne li nga mën ci sa morom am ci yéene nga mën ko àggale nee na mi ngi sant bu baax moom it sëñ Samba Xaye mi toog nee na di sab taalibe nee na di ko bëgg lu baax nee na ñoom ñi yaru ci sëñ Sidi Mokhtar xam nañ diggante Cheikh Samba ak Cheikh Sidi Mokhtar nee na digganteem ak ak alaaji Mbàkke Kebe nee na doonoon jëwriñu sëñ Sidi Muxtaar mën na ne nee na mën na ni bu sëñ bi yoroon semmiñ nee na bu sëñ bi yoroon semmiñ namm ko ba mu ñëw namm ko ba mu ñëw jox ko Mbàkke nee na jox ko Mbàkke ne ko demal ci tool yi ne ko ci tool yi alaaji mii nee na alaaji Seex Sàmba mii nee na moom la daan jox semmiñ nee na fu mu jaar nee na lépp tëdd man na mën nañoo seere loolu kon nee na lépp lu mam nee na ko ndax da koo liggéeyal ci kër sëñ Baara nee Cheikh Sidi Mokhtar moom képp ku jàkkaarloo woon ak moom noppam boobu nga def ci sa aajo nee na sëñ borom faj ko nee na euh, euh, rawatina ku ko liggéeyal ay at nee na Cheikh Samba Xaye yow nee na yow gisagoo dara waaw nee na na xool fu sari ca xam ne yow gaynde ak sëñ Baara nga nee na ginnaaw bi loolu wee nee na sëñ xaadim nee na nee na mi ngi sant nee na sëñ Fall mii doog a toog moom soxna Oumy Touba moom sëñ Bas moom sëñ Mandoumbe Xabaan nee na sëñ xaadim nee na sëñ Fall mii ñëw indi na fi xéewal yu bare bëri di rakkam la. di di xaritam. man mii de. moom nee na. man sëñ Abdou Guèye nee na sëñ Abdou Guèye barki Dembo Ndiaye nee fekk parking ba lañu ëpp na ñaar fukki nit. nee bii mu sol ci la bokk. ñëpp la xotti kenn ku ne 10 mètres mbasin la la di 200000. nee mu def ko ngir jëmmi sëñ Xaadim Guèye ak bisu maamam bi nee na Cheikh Fallou ñaanal lépp loo man ren di ko mën déwén nee na ñu ngi sant ñëpp nee Abdou nee na wax a ko jafe nee na sëñ xaadim moom nee na waxoon na lu ëpp li ci sëñ xaadim nee na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax sëñ bi nga ñaan sëñ bi ñu seeral la Cheikh Fallou mii day nit ku baax Cheikh Fallou mii moom soxna Oumy Touba moom sëñ Bas moom sëñ Mandoumbe Xaban digganteem ak xaadim ngay mii Abdou mën na ci seere waaye ñun ñii nga xamante ni ki paaroog sëñ xaadim mi guddeeg bëccëg ña nga fa mat nañ ci seere Cheikh Fallou jàpp rek xaadim ngir ci yi xew da koo jàpp démb tey doog a ñëw mu ñëw xam ne xaadim liggéey rek la xam ak jaamu yàlla ak ànd ak njabootu sëñ fallu sëñ fallu bi fekk ko ci loolu sëñ fallu nag mboolem ku mbokkal sëñ fallu wala ku mbokkal sëñ tuba wala ku mbokkal sëñ mee xaban addiyaam bis bu set mi ngi ñëw ci yow ay yitteem bis bu set mi ngi ñëw ci moom ñun ñi nga xam te ne ay taalibe sëñ tuba la lépp lu nu xewlee bala ñoo gis kenn bu nu geesoo gis sëñ fallu mi kon nag Mbàkke nga ñaanal ko ci barkeb sëñ Baara ñaanal ko ci barkeb sa waajur Cheikh Sidi Moutar sama borom dëbb koy kattan ndax bu amee teraanga ñëpp am teraanga xaadim mii nga dolli koo ñaanal Cheikh Samba mii alali sëñ Baara rek la li ko Abdou wax rek noonu rek la demee nga ñaanal ko sama borom guddal fan nee na Abdou Gueye li mu wax nee na daa xam daa mel ni daa xam démb moo tax nee na loola tax mu jaar fi mu jaar diggante ak Cheikh Samba ak njabootu sëñ Baara nee Cheikh Samba nekk koo xëy ni ci kër Cheikh Sidi Mokhtar nee na kenn ku ne umpale woo Alaaji Mbàkke Kebe li nekk ci moom lu ne rek Cheikh Sidi Mokhtar a ci def nee sëñ Samba xëye moom mii nee na mu topp ci ginnaaw Mbàkke Kebe rek ngir jëmmi sëriñ Sidi Mokhtar rek nee na ba sëriñ bi gis loolu ci moom nee na pësteefam nee na woo na ko ba tàyyi moom sëriñ bi nee na samp ko sant ko gërëm ko nee Cheikh Samba nii mu mel nii noonu moo tax mënu ko bañ a ñàkk mel nee na am na ci loo xamante ni moom mi mënu koo wax nee na ñun ñi ko fekke di ak njabootu Cheikh Sidi Mokhtar nee na tey ñoo ko mën a wax tey jii nee na jàmbaar dëgg ngi nii toog nee na lépp lu mu am nee na moom liggéeyal sëñ Ba rek ko may liggéeyal Cheikh Sidi Mokhtar ak ko may. nee na comme Abdou Gueye ni nga ko waxee noonu rek la nee na Cheikh Samba yow gisagoo dara nee sëriñ bi moom nee fooy fee mu nekk la gën a mën a gis ndax gis-gis yi ne fee nee mi ngi mel ni miir bi ngay gis la ca ginnaawam nee na Cheikh Sidi Mokhtar noonu la mel ne nee na ku ko mos a ñaqal rek nga sonnal ko nee na tey jii boo ko gisee rek dina xam ne gis na koy ñëwee ba ci mortale mii nee na alhamdulilahi rabbil alamin nee sëñ xaadim ñu ngi la koy gën a dénk bu baax a baax ñu ngi la koy gën a dénk bu baax a baax nee nee na bu jaar woon ci yoon woowu nee na moom damay toog rek noppi rek nee na lim ko wax nii nee na képp ku ne ci kër gi nee na mën ngaa seere loolu nee na lu baax rek ci la ne nee na ginnaaw yàlla boole na leen ngeen gën a booloo gën a jàpp nee na ci barkeb sëñ Tuubaa nee na sëñ bi gën na la koo dénk nee na ni nga ko waxee sànq rek nee na sëriñ bee leen boole yàgg na lool nee na nee na mu jàpp ko lool nee na tax bisam bii su doon toog fii ba fajar nee na barke sëñ Baara jaral na ma ko nee na jaral na ko lu nekk sëñ Xaadim Géey alaaj nee na barkeb sëñ